asalaamaaleykum nuyu nañ leen bokk internet yi fépp fu ngeen mën ci nekk ci biir réew beeg bitim réew l'international di nuyu suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi di leen ñaanal jàmm di ko sàkku yi tamit ci ñoom waaye tamit noonu la ñuy duggee ci biir hôpitaux yi daal di dem ci biir kër yi fépp fu malade mën ci nekk ñu ñaanal la suñu borom may la wér ba nga mën a delluwaat ci say activité seen émission wan ma sa model art ci biir Padoa TV ngeen ànd seeg seen doom seen xarit système tey nag ma daal di am benn tailleur bu ma invité muy kan euh, Afia Couture xam naa ne dama koy daal di bàyyi mu daal di nuyoo bu nuyoo wee ñu door a jubluwaat ci waxtaan bi Afia. maa ngi lay ziar soxna si maa ngi sant bu baax ku ci nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant waaw man la jiili nag borom Afia Couture Afia boo ko déggee mooy maanaam jàmm rek la jublu. ay jubluwut leneen moo tax ñu jël tur bi daal tuddee tuddee ko loolu Afia Couture parce que ñun moom ci jàmm rek lañuy dox waaw wasalaam. allah Afia mooy jàmm kase dañuy daal di jublu rek ci waxtaan bi daal di ñuy wax tuuti sa jaar-jaar. waaw sama jaar-jaar moom dama ci dama ciy sawar lool pour wax ci ndaxte àdduna moom lépp loo gis rek tëbul rek sotti. wàññi boo gis ci benn la tàmbalee nekk nañ fi apprenti jàng fi métier ba yàlla dogal xam-xam boobu tey ji nekkoon suñu patron mu def ko ci ñun xëyuñu xëy rek nag yegg si fii te it ñu ngi séentu leneen lu raw lii waaye comme ni ma ko waxee rek tepp tepp moo gën yuréet waaw te tamit metti woon na waaye li olof njaay naan ku xam li nga bëgg doo sonn doo tàyyi boobu ku xam li nga bëgg doo tàyyi ndaxte ku ne téyër moom xam ne téyër moom dafa nekk loo xamante ne nii jaar-jaar bu yàgg la jaar-jaar maanaam jàng métier bu yàgg la parce que tey ji boo bëggee xam-xam yëpp dajaloo sa bopp ngay ñëw yëre jigéen di ñëw yëre góor di ñëw kosim di ñëw pantalon maanaam amatoo lu la jaaxal ci ñaw parce que tey jii baylaat bii ma sol nii sax maa ko ñawal sama bopp. kon dañuy xam ne métier bu bu jël temps la daal. waaye yàlla dimbali nañu. ba lépp luñ ci war luñ ci waroon a def rek def nañ ko ci. biñ ci waroon biñ ci tollee pour jàng ko jàng nañ ko. bi yàlla defee ba ñu dem ba xam-xam ni xam ne nii suñu xam-xam màcc na pour ñu ubbi place def nañ ko. waaw waaw. damay profité foofu ndax bëgg naa xam benn mbir. Mhm. ndax euh, ñaw bi. nu la duggee maanaam loo doonnu la luñ la jàngal la wala lu la dab la waaw ñaw bi moom wax dëgg yàlla du maanaam lu ma donn parce que suñu kër musul am téyeer c'est la première fois man maa fay téyeer ndaxte su ma juumul virgilisateur laa doon njëkk laa njëkk a liggéey bi ma jógee ci virgilisateur ma liggéey menuisier bi ma jógee ci menuisier ci laay door a dugg ci téyeer léegi nag bi ma duggee ci téer ma xam ne ci li ma jaar lépp man lii maanaam lii mooy sama sama bëgg-bëgg sama amour tamit ci lii la nekk parce que tey jii dama daan xool suñu patron buy ñëw day sañse lu rafet gaare otoom ñëw dugg ci atelier bi ma xam ne nag man kon tey jii ni mu mel nii te man wax dëgg yàlla damaa bëgg lu baax moo tax tey jii mu nekk laal loolu la ma duggee man moo tax bi ma ci duggee aw ma ci lu ma ciy rëccu dëgg la boo ko gisee sax xam ne sañsekat la <laughs> moo tax xam naa amour bi daal di koy dugg léegi nag euh, tey ñu daal di ñëw ci bërëb bi mhm. muy Afia Couture mhm. tombeek ngay inauguré tamit mhm. boo ñu mënee wax tuuti ci place bi waaw place bi moom place bi moom wax dëgg yàlla dañ ci sawar lool ci wax ci ndaxte ñi dëkk ci koñ bi tey jii suñ moom maanaam bu ñu fekkee woon lii rek ñoom mën nañu wax ci place bi man sax du ma wax ci place bi ndaxte wax dëgg yàlla tamit ma am ci tamit ma laale ko rek ma am ci ay xarit yu baax. yoo xam ne dañ ma cee taxawu ku ci mel ni ndigal ku ci mel ni yeyaa Pape Thiam yaa ngi dégg ay Laay Nduur parce que tey jii place bi nii su ma demee ba jot ci yàlla ki naan Laay Nduur moo tax ndaxte boobu. maa ngi nekkoon ci palaasu jàmbur aw ma palaas mu woo ma ba ma ñëw mu ne ma nit day gëm boppam te wax dëgg yàlla talent bi nga am waroo nekk ci palaasu kenn gis naa benn magasin kaay ma dimbali la dem yóbbu la foofu te place bi li ma ci gën a marqué mooy jour bi may ñëw fii di joxe avance sama benn xarit bu ñu naan Cheikh dem na États-Unis wallaahi lazim yor ma woon dërëm bi ma koy wax moom moo ma abal xaalis bi ma jox borom kër gi. moom it maa ngi koy sant lool maa ngi koy sant bu baax parce que war na ma ni àdduna daal lépp ànd ànd boo gis rek jàppalante la place bi man noonu la ma dikkee du loo xam ne ni damaa ñëw tëb tëb rek yor sama moyen boo bopp ñëw def ko ay nit ñoo ma taxawu ay nit ñoo ma jàppale ba tey jii place bi yegg si fii mm-hmm. waaw. macha allah kon xam naa ne après dañuy daal di. danga ñu daal di expliquer tamit sa modèle yi ndax gis nañ fi yu rafet yoo xamante ne nii il faut nga expliquer taille basse bi ak trois pièces bi ki nga xamante ne mu ngi lay seetaan mhm. bëgg na fee ñëw nga wax ko tamit fu muy jaar ak place fu mu nekk exactement mhm. waaw waaw Afia Couture moom ku fi bëgg ñëw yomb na parce que boo ñëwee ba ci croisement 22 bi rek mhm. soo wàccee euh, descente bi première doodaan rek am na benn garab bu mag bu nekk ci wetam foofu foo laajte Afia Couture rek ñu wan la ko waaw lii moom taybaas la rek waaye taybaas yi boobu it am nay ngalaju taybaas moom yàgg na waaye taybaas yi dañuy wute. gis naa waaw taybaas yi dañuy wute lool ca ku fi ñëwit mhm. buñ la ñëwalee di nga xam ne ni taybaas yi wute na mhm. waaw parce que liñ olof njaanaan roy dul roog piir léegi ñoom am ay tur taybaas bi moom kii la rek. maanaam tay rek amul tur tay rek laa ko mën a tuddee yaa xool daal moom daal maa xool rek léegi bu dee génne ko nii mu nekk style bi waaw trois pièces tamit la même chose parce que tey jii mënuñu fee wax trois pièces ba wax fi loo xam ne nit mën naa jaaxal trois pièces parce que ñun avant ñuy judd dañ fi fekk trois pièces mais léegi kon ñaw bi ñaw bi moo changé rek waaw motif yi ñoo changé te lii maa ngi ciy sant sama xarit bee nga xamante mooy sama téeru daamina bi moom lu mu ñawut baaxul ci mim réew waaw ñu gën koo xam ci papa Thiam. moo ci jaar moo ci jaar sama téer bu baax la wax dëgg yàlla moo ñëw lu rafet lii. waaye nag euh, boo ñu mënee wax ndax dañoo gis nga def Serigne Saliou. Mhm. waaw kii moom su may wax ci moom sax fu mu ne nii yaakaar naa ne du jeex ndaxte man moom Serigne Saliou moom nu ma ko bëgg ci sama xol wallaahi du parce que même bu dul dara daa am foo xamante ne nii tey jii man sëñ Saliou daf ma fa féete woon ci jamono ji muy dund mësuma koo wax nit nag waaye yàlla dimbali na ma ma dem ba ci moom yàlla dimbali na ma dem ba ci Serigne Saliou toog ak moom mu toog nii ma toog nii ma ne ko day Serigne Saliou mu ne ma naa ma ne ko man de benn mbébét laa am ci àdduna bëggumaa génn ci réew mi te bëgg naa am xaalis ci réew mi te loolu mësuma koo wax nit te boobu maa ngi gën a nekk xale sama maam moo yóbbuwoon ba ci moom te ba may ñibbi ci sax dama ar réeroog sama maam waaw cofeel googu nag la am ci sëriñ saaliwu waaye man sëñ jiili bu sëñ Abdou Akim mooy sama sëriñ ci moom ci moom laa jébbalu ci waa kër sëñ Abdou Akim yi waa kër sëñ Muntaxa yi ci ñoom laa jébbalu mais waaye man sëriñ saaliwu moom looloo tax ma bëgg ko jërëjëf Afia Couture kon dañu lay daal di bàyyi rek nga daal di wax sa kàddu yu mujj yi. waaw man de samay kàddu yu mujj daal mooy sant ndaxte jàmm moom amul lu dul sant te suñu borom bu la defalee dara danga nga kaa war a sant ñun lii ci sant dong lañ lañ lañ ci mën du suñu du suñu coobare du suñu mën-mën du suñu dara ndaxte tey jii loo am rek ci àdduna am na ku la ko ëppale waaye doomu aadama it xam maanaam. fi ko toll suñ borom lim la defal nga delloo ko ko parce que mënoon nañ koo santee neneen nit waaye ñun lépp lu ñu am sëñ Touba ñu ko gënal te di sant sëriñ Touba nag ñu ngi sant sëriñ Touba bu baax a baax a baax ñun man bokk ak ñi may àndal ñi ay tijaan lañ ñii ay ñaseen lañ waaye tey jii boo ñu fekkee ñu toog doo ci xàmmee tijaan doo ci xàmmee ñaseen doo ci xame laayeen ndaxte ñun ñëpp benn lañ mm-hmm. safar gi bu ñëwee fii sama gaay yeeg tijaan yeeg ñëpp dañ ciy jàpp ñu safar ko ba mu baax ñoom it bu ñu xewlee waxi nopp ñoom daal awma seen fay maa ngi leen di sant bu baax wallahi maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di sant ñëpp di sant tamit sama clients yi di sant sama clients yi ku ci mel ni Momi maa ngi koy sant ku ci mel ni Zara maa ngi koy sant parce que ah, Olof Ndiaye nee na ku ñemee rek dañ laa dee te fekk nañ ma ci marché fekk nañ ma ci néeg fekk nañ ma fépp kon ñooñu amuma seen fay amuma seen fay waaw di sant sama maam nag di sant sama maam bu baax ndax tey jii su ma mënee lii yàlla ak moom a tax ndaxte man sama papa bi ma amee trois ans la gaañu ñu jox ma sama maam moo ma yar moo ma dugal métier tey jii lu ma am moom la moo tax maa ngi koy sant bu baax di sant sama yaay bu baax a baax a baax di sant sama maanaam daal di sant ñëpp di sant ñëpp. salaam ñu ngi tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax ndax gis nañ tamit sa xarit yi taxawaay bi ñu fee am am na solo lool lool lool ndax li nga wax léegi dañ koy seede ndax gis nañ ko. Mm-hmm. ñu ni tamit ñu lay jaajëfal ndax suñu émission bu njëkk la. fekk yow it ngay inaugurer sa place. Mm-hmm. kon macha allah mën nañ ne lépp sëriñ Saliou. Ah, kon mat na sax damaa dugg yem ci photoom rek xam ne mat na. maa la ko wax ah, ñu ngi lay jaajëfal bu baax. lépp fii lay xewee ci Patte d'Oie TV. képp koo xamante ne nii rek bëgg ngaa wane say modèle numéro baa ngi noonu affiché ci barre d'écran bi boo ñu ci oowee dinañu ñëw daal di defanteeg yow yu baax nga daal di wane sa modèle sa modèle daal di wax tamit euh, ni ngay liggéeyee ba nga xamante ne ki ko bëgg dana ñëw fekk si la sa bërëb te du am benn jafe duñu fàtte tamit ki nga xam ne nii mu ngi ci biir place am moom di wër ku ko jàllaleel publicité numéro bi tamit pour yow la boo ñu ci oowee dinañu fexe ba heure bu émission di am rek dinañ la mën a jàllaleel sa li nga xamante ni moom ngay jaay donc noonu la ñuy nuyoo suñu waay yi tamit di leen ñaanal ñu yàgg fi loolu te ànd ak wér di nuyu tamit mbokk téléspectateurs yi di bu baax a baax di leen wax ci beneen invité ak ci yeneen i mbir ci biir Padoa TV ak seen émission won ma sa modèle art